ñaareel bi mooy woote nañu li tuddee concert de casserole nga xam ne def nañ ko fi ñaari yoon ci at wi muy jëm jumtukaay boo xam ne wax ak Sall la ci anam goo xam ne war naa mën a yomb sénégalais bu ne waaye muy jur résultat boo xam ne ëpp na beneen résultat boo xalaat muy communication bu am solo boo xam ne xale bu am dix ans sax mën na ko wax def ba mag mu am quatre-vingt-quinze ans te bu du génn këram day taxaw ci terrassam wala mu taxaw ci buntu këram wala mu taxaw ci ëttam àdduna yépp di dégg ni Sénégal am na lu ñu naqari ci ni ñu yoree seen réew ak ni ñu yoree seen alalu réew ñetteel bi mooy beneen rassemblement boo xam ne woote nañ ko le 6 janvier muy rassemblement bu mag a mag li am solo mooy lii du guléet fàtteeku leen bi ñu waxee affaire pétrole maa ci njëkk bind ab téere ñu ciy wax di ci wax di ci wax ba benn tele tugal bu ñuy wax BBC bind ci ab article ca la ñu doog a jóg nag commencé fi ay manifestation waaye dañ naan senegal sénégalais départ la am waaye amul arrivé mën na xeex waaye mënu mënu koo yàggal tey dañuy gis ay réew yoo xam ne dañoo am gëm-gëm di xeex ay ati at ay weeri weer gis nañ li xew Iran gis nañ li xew feneen ak feneen laaju ñu sénégalais yi sacrifice bu noonu waaye dafa jot ñu defaraat suñu réew mi ndax coono gi sénégalais yi du métti na te dara waral ko dul yorin gu ñaaw gu ñu yor réew mi li tax nag le 31 décembre am nañu bëgg a wax naan waaw li tax ñiy woote 31 décembre nga xam ne date républicaine la président war a wax ak askan wi kon waruñu def lii mbokk yi est-ce que président de la Macky Sall respecté na république est-ce que bu respecté woon république lii muy doxal ci réew mi dina ko doxal moom moo njëkk a jalgati république ci tëj jaay doole utiliser justice di dal ci kaw nit ñi utiliser gendarmerie di dal ci kaw nit ñi di ngem bi ñu luubal alal réew mi non seulement dara leen dal waaye da leen di jox promotion ñu gën a am doole gën a mën a luubal alal réew mi kooku est-ce que républicain la est-ce que respecté na république bi ñu jàpp ni nag comme datu république bi la république bi mooy kan mooy citoyen sénégalais yi citoyen sénégalais yi nga xam ne ñooy république bi ñoom it ñoo war a wax ak Macky Sall ñoo ko war a envoyer message ci date républicaine bi ren jii mooy doon fukkeelu yoon ak benn bu Macky Sall di wax ak sénégalais ci 31 décembre mu dese ko benn rek. muy bu daaw bu bu déwén incha allah mu abal ñu réew mi ren ji mooy fukkeel yoon ak benn est-ce que Macky Sall li mu diggee woon ak yéen waa askan wi ci fukki at ak benn yooyu est-ce que Macky Sall respecté na ko kenn ku ci yéen mën na koo tontu moo tax la ñuy li ñuy def 31 décembre du ko def diggante vingt heures ba vingt heures loolu ñuy def noonu muy concert de casserole askan wi mooy wax ci datu républicain ak président la république ne ko kontaanuñu ci ngay ni ngay doxalee réew mi te dañoo bëgg mu jeex fii rek askan wi amul possibilité di def loolu li fi nekk du fi jóge looloo tax ñu choisir date boobu kenn gënuñoo nekk républicain ndax li ñuy xeex xeexuñu ko ngir suñu bopp de république bi moo tax ñu koy xeex république bi moo araamal ñu luubal alal réew mi moo araamal ñu gannaaw bu ñu luubalee alal ñu ne dara lu ci tegu kon république boobu mooy wax ak président Macky Sall du Ousmane Sonko du du du benn leader politique du benn leader société civile waaye askan wi république bi mooy wax ak Macky Sall lii rek doyoon na ci ñu def ko waaye boo ci boolee ñaar yi nga xam ne lu am solo la. mooy ni ñuy jëfandikoo justice pour di tëj ay gor di leen métital kaaw Pape Alé Niang ngi fi tey am na ñaar fukk ak ñaar ci ay ndaw senegal yoo xam ne defuñu dara duñ wax seen xalaat ci internet wala ci rajo walla ci télé ñu jël leen ne leen rëpp ci kaso bi boobu jamono ay ñu doon jaay drogue ñu doon defar faux billets ñu doon defar léegi lii ñu ngi ci mbedd mi di dox ñaareel bi nga xam ne war nañu tax ñu génn ak ñu manifester ba Macky Sall xam ni kontaan nañu mooy njëgi mbokk yi Sénégal yi sonn nañu ñu doon jar fukk démb te mi ngi jaar juróom fukk kon ñu ngi woo Sénégalais yëpp ñu xam ni ñun ñoo mën a dooleel suñu bopp te saa suñu néewalee suñu bopp rek dooleel nañu Macky Sall ci loo xam ne luy gaañ réew mi la kon le 31 bëgg nañu fu waay nekk ci senegal waa àdduna yëpp dégg ni manifeste nga ni am nga lu la naqari ci ni ñu yoree Sénégal ni ko Macky Sall yore ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje ci événement yi